ñuy euh, nga xam ne ñuy les amis du Prytanée militaire le docteur Alpha Gaye médecin colonel à l'hôpital euh, principal de Dakar et tous ses camarades de promo euh, Khadija Mohamed sans oublier ki nga ni que ni moom mooy Touré Mohamed depuis Passy également ñu ñuy wan ni ñu ngi suivre à l'instant je n'oublie pas El Hadj Diack depuis une clinique à Tunis donc des Sénégalais qui y vivent qui sont internés des qui alors nodd bi lañ doon kii gi ñaan gi gis naa Babacar naan amin mais euh, daf may di fàttali parce que ñu ngi dalal euh, Maodo Malick il ne pas Maodo seulement de nom <laughs> euh, parce que itam diine ji farlu na si xam nga koo xam ni que ni ñu trahir le secret da nga jege woon Abdoul Aziz Sy junior mu tette la lu yàgg-yàgg yu mel ni buy am toujours c'est bien ñu si di dellu si di ko firndeel avec un de ses amis aussi qui n'est plus de ce monde qui était un homme bon et un homme bien je parle du docteur Issa Mbaye Samb euh, bu may xool euh, euh, ki nga xam moom mooy le ministre la santé muy nekk terrain bi damay xalaat Issa si ça l'avait trouvé ici moom en tan que ministre de la santé doon dem ci hôpitaux ñëw solu timidement mel na un Sénégalais lambda bu ñëwee xool ni ñu accueillir nit ñi mun leen ma c'est pas comme ça du lii la xaar ci yéen le personnel soignant da war def da donc c'est des gens c'est bien parfois que ñuy leen di na joué na rôle am Issa yàlla na ko yàlla yërëm Maodo euh, euh, Malick tout à l'heure euh, bi ngay wax mm-hmm. yaa ngi wax kanam si ceeb bi mais dafa am benn benn acte boo xam ne président Macky Sall daf ko posé parce que bi muy def discours am dafa ne day mettre sur pied un comité de pilotage mm-hmm. il a commencé ñu commencé liggéey bi séddale ba pare comité bi doog ñëw te sax si li ma dégg nekkul tout comité de pilotage maanaam dañuy superviser Euh, nekkatuñu donc au cœur du système géré mais dañuy superviser li nga xam ni ñoom Mansour Faye en tout cas ñu ngi ko dénk la def est-ce que loolu aussi nekkul gàkk-gàkk bu commencé woon teg comité bi doog a séddale peut-être euh, coow li yëpp mën na bañoon a ñàkk quoi. très bien merci damay euh, rebondir tuuti rek ci li mu seede yi mu def ci Abdoulaye Serigne Abdoul Aziz Al Amin yal na yàlla yokk leeram dama leen doon wax ni que moom c'est un c'était un homme d'État mm. vraiment yàlla na ko yàlla fay lépp lu mu def ci lu baax Hmm? ci àdduna sëriñ mbay Sy Mansour yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi fii euh, sëriñ Mountakha ak xalif suñu xalif yëpp nga wax aussi ci Issa Mbaye Samb mu nekkoon un homme de terrain je pense que c'est quelqu'un qui nous a tous marqué hmm. ci engagement am cest à fonction bi mu fàtte woon pour li nga wax nag nee na ko yàlla yërëm moom tamit ci li nga wax nag euh, mooy euh, président est-ce qu'il n'a pas mis la charrue avant les bœufs. la charrue avant les bœufs pour répondre de wax ni Euh, li ñu bëgg a def ci Covid force Covid 19. joxe ceeb ak jënd ceeb ak joxe yóbbu ko c'est presque un centième parce que sur mille milliards dama jàpp ni liñ ci wax mu jëm foofu sax lu tuuti la te benn activité la rek ci loolu mais dama wax ni euh, d'abord man président du ma di xëy na wax ak moom lu bari mais xam nga nit bu ngeen àndee da ngay jéem a xalaat. Euh, tam bu koy posé dama ni pourquoi président euh, ni gars yi nañ yóbbu dund bi parce que urgence dafa yàkkamti ba pare soog a teg comité bi parce que comité bi déjà xam nga nee nañ la société civile na indi ñetti nit wala juróom-benni nit nee nañ la parti opposition na ñëw est-ce que imaginez-vous tey mu annoncé woon ko le temps que ku ci nekk di dem di làqar ci di waxtaan pour mën a indi sa ay nit pour ñu représenter pour comité bi commencé door yaakaar naa ni ci njort bu ma xalaat dama jàpp ni président bëgg mu gaaw moo tax mu teg ko euh, fi nga xamante ni te comme je dis président tànnul c'est pas que on a choisi Mansour Faye moi je je ñun ñëpp gis nañu la répartition des services de l'État hmm. dafa fekk ni moo tombé ci moom waaw mbir mi mënoon na nekk un problème purement de transport rek Mm. kon aujourd'hui ministère du transport lañ koy lañ koy gérer mais li nga xamante ni daf ko yor xëy na moo tax mu mu tombe ci ma jàpp ni nag mm-hmm. euh, booy fóotal ku ku rafle mm-hmm. euh, wala ngay toggal ku xiif da nga war a gaaw man actuellement sama préoccupation mooy nan la ñu mën a fexe nu mu gën a gaawee ba dund bi yegg mais yemuñu foofu mm-hmm. gis nga lu ñu mën a def également ci pression ñaar la urgence mooy euh, séddale bi aw yoon te dama ni séddale bi aw yoon nag ce n'est plus l'affaire du ministère de l'équité territoriale parce que boo ko jëlee euh, jox nga ko le préfet le gouverneur ak ñu ñu jàllale ko mais dafa am leneen lu lu am mooy bu ñu fàtte ni amuñu problème mu ceeb amuñu problème mu diwlin amuñu problème mu Covid 19 la ñu am mu am jàngoro ju ñëw taxaw ma jàpp ni jàngoro jooju bu doon te ni nit la maanaam gan bu ñu gane leen nit ñi ma nit bi ma fi génn tànk que joxu leen ma 2000 milliards <laughs> dañ koy jox 20 000 milliards di ko demal ñibbi <laughs> donc il ne faut pas que le discours autour ça c'est vraiment citoyen. essentiel bi daal mooy. Euh, nu ñu mën a xeexee feebar bi mais pas nan la ñu mën a xeexee. Mhm. évaluer suñu communication fan la toll. foofu foofu dañu fay ñëw. Mhm. mais mais je veux dire xam nga coow li li ko indi. quelque part parce que am na ñoo xam ne argument boobu la ñuy utiliser le fait que Mansour Faye nekk également beau beau frère président Macky Sall parce que magu première dame la. waaw coow loolu daal di amoon euh, si si Aliou Sall avant Aliou Sall mu amoon si Karim Wade les gens ont posé ce débat parce que dañu yaakaar ne bu nekkoon keneen peut-être yooyu loolu noo ko gisee ba pare nag Mansour tamit euh, yore euh, ministère méga ministère. comme ni ñuy waxee woon Karim Wade euh, du ciel de la terre et de l'eau waa xam nga man dama wax ni. xaw ma ndax oo xam nga léegi vaar vaar léegi la xew. <laughs> mais man dama mus ci toujours bu ma daan wax damay fonctionner en vaar. parce que en deux mille euh, dix onze dix deux mille neuf bi débat sur Karim Wade jógee dama ni. Mm-hmm. le patronyme rek Wade laa sant rek warul tax ñu xañ ko cëram. président de la république dañ ko fal ni ko dénkaaneel dénkaane ka nga wóolu. Mm-hmm. mais ñaar lañu war a seet. ndax am na compétence bi kooku président parce que pour être ministre il y a que des C mm-hmm. il faut avoir trois C ou quatre C mm-hmm. d'abord mm-hmm. la compétence euh, la confiance les circonstances e bu yooyu yëpp boo ko amee nag tu vas siéger dans un autre C muy le C du conseil des ministres moo wax ni président de la république mënuñu ko tënk ci ñi fi jaar yëpp nag man dama ko yàgg a wax toujours bu ñuy booy dénkaane yow dénkal ku la neex bu la neexee sax nga dénk ku la gën a jege nga dénk ko mais xam nga lan la ñuy wax bis bu ñu demee bay rendre compte fexeel yow ba ki nga ko dénkoon buy rendre compte nga bañ ko protéger ma wax ni nag euh, ñun il faut ñu rappeler wu aussi que lan mooy tax nit falu nit buy falu de politique bu dee Babacar yow da nga bëgg jël lu mel ni réew nga ni euh, candidat la wala nga jóg jël yoon bi olof day wax ni nit lu mu dugg bu ci ay mbokkam maandoo ñu ngi koy néewal doole ndax ki am xel danaa mais kii li mu di bu doon dëgg ay mbokkam ànd ak moom yow est-ce que tey nit mën na ànd ak yow parce que sa mbokk la def ci lu mu mën reyante ci lu mu mën musoo musu la yàqal dara nga ñëw falu nga ni non vraiment nag duma ko fal parce que ñoo bokk c'est injuste war nga ko fal boo ko falee parce que li gënoon a bon tey ñu ne bon écoute ah Mansour fay fal nañ ko parce que tout simplement truc la mais li ma xam mooy man APR man euh, histoire politique bu Macky Sall quinze dernières années lu fi xew xam naa ko maa ngi toog mm. depuis quinze ans je suis témoin xam naa bu dul woon Mansour s'il n'était pas le beau-frère du président mm-hmm. bu Macky Sall formé un premier gouvernement def ko premier ministre par mérite politique ñun ñëpp kenn du ci wax donc je pense que débat bi xam nga tey ñun dañu war a seet ci li ñu mën dara le président qui choisit amoo euh, euh, pression ci moom li ñu war a seet mooy ndax mën na ko ndax ni ngi koy doxal mais bu paree de la manière la plus forte et la plus intransigeante ñu taxaw laaj ay compte te dama gëm ni lii muy euh, force Covid 2019 bii du avant pendant après jusqu'au centime près lu ñu ci def bu ñu paree président dina ko saytu te dinañu xam lan moo lan moo ci am maintenant comme li ma wax la rek. Mhm. dëkk bi nag dafa metti léegi. parce que il y la le terrorisme des réseaux sociaux. fi ñu nii boo toogee ci télé di wax. Mhm. boo calculer sax da nga naan non liñ may liñ may toj. ba moo tax j'ai formé mes enfants je leur ai formaté je leur dis lu ngeen gis fii du dëgg. je leur dis mën naa génn dem ñëw ñu ne leen seen papa wasin na pour te dire parce que dans ce pays benn. neexatul nit taxaw. ñu tuumaal nit nga di def ko. parce que yaa ngi calculer mais nag li nga xalaat te di ko wax wax ko. te ñun président Macky Sall dañu ànd ak moom ci ci dëgg. mais ma terminer foofu ñu ànd ak moom ci ñaar mu may ñu sànn suñu liberté ak suñu dignité. mooy li nga xalaat nga mën ko wax dans la liberté mais surtout nag dans la solidarité j'appelle non les gars de la mouvance présidentielle globalement tey ëllëg ginnaaw ëllëg ak lu mënti am ñuy solidaire ndax ay nit bu ñu leen di bëmëx du ñu bëmëxante seen biir j'ai l'impression que des na solidarité boobu avant que benn parce que euh, on se rappelle Aliou Sall toujours pour parler moom dafa di woon moom euh, li xew en tout cas Euh, si laboratoire palais bi la woon lañ koy defee maanaam daal mu visé woon ñi nga xam ni ñoo bokkoon benn boor benn bokk yaakaar wala. affaire non dama wax ni man globalement. est-ce qu'on n'a pas l'impression que moo am. si man dama wax globalement. Mhm. c'est-à-dire que mu nekk bu Aliou Sall bi noté nañ ko mu nekkoon keneen bu mu ci doon. Mhm. ku mu ci doon ci ñun rek. parce que gis nga koo gis mu oyofal tuuma. Mhm. dañ ko tuumaalagul. surtout moment bii nga xamante ni tout se multiplie rapidement. Mhm. dañuy wax benn wax mais remarque euh, dama lay wax deux choses keroog dama gis ñu ne Youssou Ndour mais xoolal Youssou Ndour le mérite qu'il bi ñu nee bëreet mu jël kopparu boppam ñëw taxaw jëw teleem jël lépp def ci jël alalam def ci nga ñëw nga takkal ko keroog dama gis benn journal ñu bind ñu ne euh, Néné Fatoumata Tall mhm. ñu ne. lépp jëkkëru Néné Fatoumata Tall bombardé xaw ma lan man maa woo journaliste bi ma gis ni que ku honnête la ku crédible la mais dañ lay actuellement nii mën nañ la dugal ci li nga xamante ni danga koy bind te du dëgg te nag waxoon na nee na euh, non Raymond Aron moo ko wax nee na le doute fekkoon fécond. Mm-hmm. Georges Clemenceau nee na on ne ment jamais autant en en période de guerre. qu'en termes de campagne électorale te kooku ñuy wax mu nekk soxna euh, borom këram. Mm-hmm. il est cadre là-bas depuis 17 ans. ba mu fay dugg ndaw si wóor na ma ni ba euh, madame le ministre amagul certificat. pour te dire que damay rappeler la presse globalement à la vigilance c'est-à-dire que bu ñu ko deful dinañ leen dugal ci li nga xamante ni li olof yor bul ma bëma la te ëllëg. Euh, noonu lay demee rumeur bi am nga am fi procès dem ki la ko jox ñi la man waxuma la woon dara parce que ki lay jox suuf suuf si du ko bind donc je pense que globalement c'est la situation qui qui appelle à la vigilance est-ce que est-ce euh, mi ngi koy junj finalement li ngeen am c'est pas un problème de communication hmm. te bu ngeen amee problème de communication dina jaaxal ñu bare mun leen am Alioune Fall Abdou Latif Coulibaly El Hadj Kassé Daouda Guissé Ousmane euh, ah, mi moom mi waaw <laughs> ñi fa nekk ñëpp def nañu la presse def nañu les médias def nañu les diplômes qu'il faut am nañu expertise ak expérience bi ba pare tey seen communication bëgg euh, Babacar xam nga euh, benn xam nga ñun lan la ñu am xam nga man maa ngi nii di ñàkk te xam nga li may wax xam naa ko maa ngi nii di ñàkk c'est pas petit jeu imagine toi keroog maa suuf ñàkk gars yi ni ko li nga doon wax xamoo ko moo tax nga doon ñàkk mais c'est compliqué dans ce pays là léegi amatoo droit ñàkk. non c'est que même li nga wax nii sax c'est de la com. non non moom laa lay wax moom laa c'est-à-dire léegi léegi délit de ñàkk moo am quoi léegi da ngay dem ci plateau amul ko mu xaw a tàng nga ñàkk yooyu noonu li mu doon wax xamu ko parce que dafa ñàkk. mais déglu li waa ji wax pour en revenir ci li nga wax ñun a deux problèmes. on a un problème de ñun li ñu waroon a générer yëpp ki ñu jiite daf ko jël générer ko muy Macky Sall c'est un homme fondamentalement généreux mais ñun bu ñu généré woon di yaatalante di am ay cadres yu ñuy waxtaane di nas. di nocc di ko indi mu leer la di benn affaire am na nga ni non man par exemple parce que li ma leen di wax la nee naa leen dafa am benn formation bu ma doon defal euh, fondation benn fondation. man ak Mame Less Camara ci wàllu communication c'était en 2011. ma ni leen. ay nañu jàngal communication loolu du wax kenn mënul tamit ba wax ni man mën naa communiquer parce que xam nga Roger Mila li doon li mu doon wax euh, kii boobu Iquita fàtte naa góolu colombien ba mm-hmm. li mu gënoon a mën moo koy fàtte donc en principe kenn mënul kenn tëlewul am nañu am nag ay prédisposition mais lépp dañ ko war a teg ci générosité parce que formation boobu dama doon wax xale yi ni leen mënoo dem ci émission ñu ni la émission bi wolof la nga nga ni nga ni nga départ ni sama wolof leerul hmm. mais jugal dem parce que fii wolof la ñuy wax mënoo hmm. dem ci olof fi nga xamante ne pulaar la ñuy wax nga bëgg a wax ay tubaab donc mais je pense que ñun lépp li ñu soxla hmm. gis nga majorité présidentielle li ñu soxla yëpp mi ngi fi mais est-ce que acte yi yi Macky Sall posé également moo tax communication bi doy waar parce que tamit bu fekkee def nga lu leer loo xam ni neex na wax du am problème mais bu fekkee tamit toujours yaa ngi xëcc loo xam ni peut-être demeewul noonu oui mais mais mais dama lay wax xam nga foofu. on ne communique pas sur du faux. non non non non non attends il faut peut-être président bu ñu justé ak moom rek xam ni. parce que ñëpp mën nañoo bokk. xam nga moom moom ban problème la am. Ah. daf koy def ba pare mu baax. xam nga fii rek laa gis fi nga xamante ni wax ko moo gën a jafe def ko yi gën a compliqué. Ah, daf koy def ah, réussir ko. ñu teg léegi ñu am problème wax parce que xam nga wax euh, day am ñi nga xamante ni dañuy ñëw wax. ñu ni la li nga wax dëgg la mais du fii nga ko war a waxee nga ñëwaat wax ñu la wax li nga wax day dëgg la mais du yow yaa ko war a wax nga ñëw waxaat ñu la wax dëgg dëgg la mais yow kenn laaju la ko <laughs> donc moi je pense que amul kenn ku am ni en com ba war nga mën a wax leen mais dama wax ni hmm. ñooñu nga wax yëpp ñooñu ñëpp ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi ci ay kàngam lañu bu ñu amee benn cadre informel même de waxtaan générosité hmm. mais et ñu wóolu ki ñu ko seqal parce que dama ni Macky Sall nañ def ndànk Macky Sall du joxe day jàllale yàlla rek kay joxe yàlla li mu namm ci Babacar Dione tey bu fekkente ni yàlla dafa décidé woon nii xam nga actuellement nii amoo benn connexion politique ak ak Macky Sall mais si ma bu fekkente ni nga war a nekk ministre dafa nekk ci loxoom yow da nga koy nekk te ci loxoom lay jaar. xëy na nit dina sonn ba bay bëgg a dee du ci am donc ñun dañu war a généreux après ñu yaatal mais comme pour en revenir ci lii nga xamante ni moo ñu ñor une fois encore may ñaan ñëpp man dama wax ni en principe man dama rafet njort ci toute la presse wax ni que dañu am de bonne foi mais nañu def ndànk ci manipulation mm-hmm. nañu xam ni la rumeur et le cancer de la vérité. Mhm. parce que bu xisee ba génn bala ngay dabu day ëpp fekk gor si la rey nga ko ba mu dee. léegi ci feebar bi ñu ci duggee. léegi bu ñu ñëwee ci feebar bi euh, nag. communication bi ngay wax. ñu dugg si. Mhm. parce que quand même depuis le début euh, je crois que début mars la woon ah la ñu commencé am. premier cas yi ah. Euh, léegi. on a l'impression ah moi j'ai l'impression benn moment communication bi dafa xaw a saturé euh, on n'a pas senti gis nga même Sénégalais yi on a l'impression que ñu ngi wax masque bi ñëw na peut-être lu bees la moo tax ñu porté doo ko mais est-ce que amoo impression boobu euh, Malick foofu en tant que quand même euh, communicant waaw que communication bi dafa saturé war nañoo changer paradigme pour sénégalais yi gën a gën a accroché. waaw d'abord foofu damay féliciter bu baax encourager le ministre de la santé et toutes ses équipes. de communication de veille d'alerte le personnel médical vraiment seen seen taxawaay am na solo e gis nañu ni que téye nañu mbir mi mais li nga wax ci communication bi buñ koy xool communication de crise li ma ci xam tuuti mooy euh, bu ñu déparé on priorise la communication expertale mooy la communication des experts. dañ ñaan fukki fan juróomi fan juróomi fan ñaan ñaar fukki fan na experts yi rek di wax te déglu leen li leen experts yi di wax bu dee crise financière banquiers yi la ñuy jox financier yi les planificateurs ñu wax bu dee leneen leneen bu ñu demee ba mu weesu foofu nag dañuy xool beneen dimension bi dimension boobu ñu am tey mooy ñun amatuñu problème mu maladie. on naa hmm. un problème de comportement parce que tey euh, Babacar bu fekkonte ni dañuy wax ni. Euh, hôpitaux yi débordé na. Mhm. am ñi wér bariwuñu nit ñaa ngi dee ñu ngi leen di kii au ainsi mhm. kon ñu ne on a un problème de maladie. un problème médical quoi. pendant de, de, médical. Mm -hmm. que que que li ñu am nag mhm. c'est plus. en tout cas c'est un problème de maladie. parce que médical parce que moo tax. mais comme problème bi ñu am benn mooy. un problème de changement de comportement dama jàpp ni les experts dañu war a dellu ginnaaw tuuti. ñu mettre en avant ñi wa ñi war a wax ak xelu sénégal yi maanaam les sociologues les anthropologues les psychologues les experts de l'intervention sociale parce que loolu beneen affaire la bokkul ak nga jël bon bàjjanu gox baax na les OCB ñoom ñëpp mën nañu jouer euh, relais comme message mais lan la ñuy def tey aujourd'hui lan la ñuy def en termes de communication pour sociale pour dem changer pour le changement de comportement dafa am lu ma doon xalaat dama ni masque tey waaw euh, ministre de l'intérieur les forces de sécurité ñu ngi leen di encourager franchement respect service d'ordre bi man kenn bëggul violence mais gis nga bu ñu fi nekkoon ci début ba di expliquer te dóoruñu kenn bëggul violence de mais xam naa ni dóor yi xam na aw na xam na lu ma xaw a régler parce que am na ñi nga xamante ni da ngay wax ñu dégg am ñi nga xamante ni da nga leen di wan ñu gis am na ñi nga xamante ni xëj na il faut nga contraindre leen pour ñu def donc dama wax ni mesure bii ñu jël pour port de masque obligatoire baax na mais imagine toi ñu defoon euh, des masques bind ci Ila Touba masque jërëjëfi Sëriñ Touba xale yi nga xamante ni football rek la ñu bëgg nga bindal leen Sadio Mané bindal leen ci leneen bind waa kër Seydi Hadj Malick ngi sant bind waa kër Baye Laay ainsi de suite parce que am ay réalité sociale am ay réalité culturelle am ay réalité confrérique ñëw ba fii ñu ne non bu kenn wax vraiment na Sénégal yëpp nekk benn alors que Sénégal du benn Sénégal dañoo bennoo on a une unité mais ah, on a on n'est pas. nekk bennoo mais duñu benn. mais duñu benn parce que différence yi. dafa dafa wuute moo tax ma wax ni nañu évaluer mbir mi am na nag lu ma dégg ñuy wax man dama ci am une position ferme. mooy le confinement. d'accord d'accord ma ci. xam nga dax lan. Hmm. Babacar le confinement c'est pas une question purement des médecins. te man maa ngi ñaan naa yàlla président buy déglu. ne déglu médecins yi parce que ñoom nag macha allah je pense que li leen Youssou Ndour wayal ni ci gaynde yi lu am solo la mais dama lay wax d'abord nañu xool confinement fi ñu ko def lan la jur. Hmm. nañu xool confinement tëj xam nga confinement muy déjà on a un demi confinement. Hmm. mais nañu avancer seet évaluer loolu seet problème bi fan la. c'est les cas communautaires yi ñu wax mais lan la lan mooy problème bi y a une mesure. ah sanitaire Sénégalais yi tooguñu rek ñu ngi jaxasoo. non dama ni Sénégalais yi tooguñu. ñu ngi jaxasoo ba léegi. waaw mais mais dama lay wax Sénégalais yi. tooguñu est-ce que est-ce que est-ce que parce que aussi parce que yaa ngi wax les communications sociales bi. est-ce que mhm. parce que amul ay leviers yoo xam ni. dañu leen teg de côté. comme les imams. Mhm. les hommes d'église. Mhm. parce que euh, ñooñu bi ngay wax léegi Serigne Touba kër xalaj Malick xëy na tey bu ñu gisoon benn imam taxaw di jiite euh, sol masque. Euh, dina def impact bu bu bu réussir ñi nga xam ne ñoom. toog si mais mais mais justement parce que xam nga ndax lan moment bii euh, li ñuy def yëpp baax na une fois encore na nit ñi généreux nañu généreux mooy bu ñu defee nii nit ñi dañu ñëw pour ŋàññi wala mais moment bii. du moment wu wax sa xalaat moment wax sa xam-xam la. ku nekk li ngay wax rek na fekk ni da koy indi pour mu baax pour rek corroborer li nga wax sa xam-xam non c'est vrai ah, mais xam nga wax sa xalaat dafa am wax sa métit am wax sa naqar am da gis parfois ku woote ci rajo bi nga wax li nga xam <laughs> hmm. mais benn li nga wax léegi nii li mu am solo xam nga mooy lan loolu bu ñu ko defee ñi ngi wax ak xolu nit ñi parce que on a plus de problème gis nga fi ñu toll nii raxas leen loxo yi hmm. benn pas dafa <laughs> c'est un c'est un vieux daf ma daf ma may kii quoi dama dama dañ ko indil saabu ma rombaat ni ko góor gi saab bi jeex na mu ne man maa ngi raxasu rek mais kañ lay lekk bon c'est juste une manière de te dire que moment bi moment la bu ñu war a seet xelu nit ñi lan la lan la mais xel boobu euh, euh, Maodo Malick Sénégal am na ñaari problème ñu koy seetlu muy ñëw depuis de longues années benn bi ñu ngi gis crise de confiance bi Sénégalais yi dans l'ensemble en tout cas toutes les couches am ak autorité bi euh, maanaam l'autorité politique période même administrative. pour mu wax l'autorité euh, ñu am problème boobu beneen bi également on a laissé faire ñu koy gis te indiwuñ ci solution mooy que ni Sénégal amatuñu kuy wax référence exemple boo xam ne ni mën na wax Sénégal yi déglu la benn moment donné les gens ñu ngi doon mer gis nga yaa ngi la yaa ngi rappelé bu ñuy wax mbër yi ah xale yi dañoo bëgg a nekk mbër wala fecckat wala leneen mais pendant ce temps là euh, defuñu dara pour que maanaam Sénégal yi en tout cas la jeune génération di am repère boo xam ni bu ñu waxee ni dégg leen au moment où on est en crise mais on a même un problème d'avoir une voix qui porte Sénégal foofu ñu toll d'avoir une voix qui porte bu fekkee autorité bi ah xam nga benn moment on a parlé ñu ne manque lañu da baax après mais mais mais mais amuñu amuñu ça le problème du Sénégal amuñu ku mën a wax pour Sénégal yi déglu la. mais mais xam nga Babacar loolu mi ngi commencé ci fan d'abord ci cellule familiale bi. Mhm. moi je pense quand même sans le dire sans le sans le vraiment heurter nit ñi mooy suñu cellule de base muy famille bi. Mhm. moo am na famille yi nga xamante ni tey mais euh, couvre-feu moo tax nit ñi di nekk. donc je pense que dañ war a gën a jege famille bi te loolu kenn mënuma gëmloo ni euh, mbiru am-am la parce que man damay wax man dama dañu juddu ci kër gi nga xamante ni dañ daan gobar jaasi mooy nga togg añ bi ci reer mhm. donc c'est pas un problème dara doyu fa woon mhm. mais au moins mi ngi noonu après boo génnee kër gi rek kër gu nekk amoon na benn mag mi nga xamante ni bu dajee keneen ki mën sa doom def dara mën na ko lijjanti mhm. lu ñun nag li ñu naqari yëpp. parce que corona épidémie la wala pandémie mais day dem bu ñu deful effort régler ci suñu problème yooyu. redorer oui. suñu suñu suñu suñu blason dinañu am sérieux problème mais tout est parti de la euh, cellule familiale beneen élément bi mooy comme li ma wax la nit boo koy ŋàññi ku munti doon wala nga koy waxal mhm. fexeel boo waxal ko lu am parce que xam nga Babacar nit parfois am na ñuñ fi na naw leen trop nga toog ba ci yàgg ñu takkal leen def na ñoom def la wóoru la mm-hmm. mais ñu takkal leen li nga xamante ni après yow tu as des difficultés pour gëmati leen maintenant nag il y a que aussi euh, nit bu fekkente ni dañ la parce que yàlla rek kay suturaal jaam mm-hmm. koo naw ba topp ko am na lu nga xamante ni xëy na yàlla bu ko lu ko génneloon ci moom man la ko rek nga nga xeeb ko mais dama wax ni tant que nit ñi ñu ngi def effort di am fu ñu jëm. je pense que nan leen ci nan leen ci jàpp. ñu xool ki nekk euh, en ligne allo. allo asalaamaaleykum sëñ bi noo tudd foo ñu woowee. man la euh, dégguñu tur bi. la. Diouf Mokhtar. Diop Mokhtar. waaw ça va. ça alhamdulilah. ma c'est la première fois may woon ay émission télé rajo. Mm-hmm. en fait lii tax may def ma dégg rek consultant boobu. waaw allo. waaw ñu ngi lay déglu. un consultant monsieur Dione dinaa koy suivre pourtant. waaw mais dafa wax léegi nii Sénégal am problème référence. Mm-hmm. mais en réalité c'est les journalistes ñoo nekk di déconstruire les références dans Eh, loolu rek la bëggoon rek apporter comme contribution c'est-à-dire les références existent. Mm mais quand les journalistes dans ce pays maintenant c'est les rumeurs. Mhm. qu'ils prennent comme preuve comme matière à réflexion ça pose problème. Mm -hmm. nous sommes dans un pays où il y a des intelli des intellectuels des intelligents des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience. Mais à entendre les journalistes ces derniers temps parler, ils sont en train de construire ce pays, les références, la société, mmh. les valeurs. C'est-à-dire ils veulent mettre en place un système, un nouveau système. Mmh. C'est-à-dire la rumeur étant la vérité. Et c'est ça qui est dangereux. Mhm. loolu rek laa bëggoon intervenir ngeen baal ma. Mhm. merci la première fois nag quoi. voilà. merci beaucoup à vous, monsieur Mokhtar Diop. Euh, euh, euh. je crois que presse bi am na ci rôle ah. pour ne pas répondre quand même pour la presse ah vraiment. Mm -hmm. parce que je suis pas là pour ça mais je crois que presse bi am na ci responsabilité mais man je crois que ça va au-delà même des médias quoi. ah mm am na ci part de responsabilité bu jouer rôle am peut-être que référence yu bëri mën nañu la mettre en valeur bañ rek toujours rek di xool également lu bon di ko génne je crois qu'il y a des en avant. mais c'est c'est au-delà wax nga cellule familiale bi am na responsabilité boo xam ne aussi war na ko def ko te te gis nga kii beneen aspect bi ma noté ci euh, ñi ngi wax ci communication bi mais man li ma bëgg tamit ñu euh, ñu indi ko. Mhm. mooy ñun dañu am ce qu'on appelle les ressources endogènes. Mhm. cest à man ci riposte bi ba léegi. Euh, ñi ngi def li ñuy def baax na mais comme je dañ fi nekk pour xalaat. pour yokk ci. parce que xëy na tey ministre bi dina dégg nga xamante ni c'est un cadre éminemment éminemment euh, vraiment nit ku nit ku nit ku mën la nit ku xarañ la mu Diouf Sarr je sais que ni day déglu jël not seet lan la ci yokk man dama am lu ma noté benn mooy euh, les ressources endogènes la médecine traditionnelle depuis le 9 août 2016 ah. ci la la Cour suprême validé mm-hmm. euh, la la pratique mm. de la médecine traditionnelle non benn jëlal kii nga nga li muy wax nii parce que fi mu dugg dafa am solo. non c'est important euh, les oui c'est important les les les malgaches. xam naa fa la bëgg dem mais jëlal kii c'est très important fi mu dugg. aleykum salaam sëñ bi naka nga def. waaw damay bëgg waxtaan ak ñii écran bi. waaw. Ah? Euh, dégguma la bu baax de. ma ne trois jours saa bëgg a waxal ci waxtaan wi. waaw mi ngi lay déglu ñu ngi lay déglu Malick mi ngi lay déglu. waaw. ah waaw ay ah, maa ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. waaw Diouf. Euh, ma bëgg a intervenir à propos de Serigne euh, euh, Maodo. waaw Maodo farlaal naa di ko topp. dafa wax wax bu am solo. wax bi mooy cause ci kër yi. du ma wax c'est dommage que naa jox suma tur ne kon am na du ko mën a wax. dëgg dëgg ndax dañ euh, euh, euh, sama bopp. dafa saturé quoi. fii may wax ak yow. waaw bi ma jëlee tisbaar ba pare. dëkkaal yi dafa yónni dama yónneewul ci man dama gis këram amuñu ceeb bu ñu sóor ma téléphoné boutique ba may lebee man je suis à la retraite société ba ma doon liggéeye dañ ko tëj le 30 novembre 1998. ça fait vingt deux ans nous courons derrière derrière benn xaalis ma yoree ma de borom boutique ba ni ko dama bëggoon di dimbali ma loolu ma kilo liibar ma joxe ko eh, mu mu jox ma ko ma jox ko ñooñu taal waaw léegi bu fekkee yow mi def ci kër gi sa dépense ma teewul dund ba nga yoroon jeex na say la am dimbalee la ko jeex na alors yow mi nekk ci biti nag nekk à l'aise mais xam nga loolu mënuloo ko yëg bi ci gën a gaaw nag quartier ba nga dëkk dañ ko considéré ci quartier yi nga xam ne quartier touriste la lépp fa am fekk apparence la bi ci gën a état nii ma di la digal nag bu fekkee ne président man nga wax ak base bi ñu ko leetal nekkoon na mooy. waaw euh, sëñ bi Diouf xam naa ni am na euh, loo ci mën nga ko waaw parce que dafa ni dafa julli ci tisbaar ba pare. Mhm. dëkkaale bi ñëw ni ko amul ceeb bu mu sóor. mais daf ko yónnee si keneen donc il a obligé moom mu dem si yónnee ci boutiquier bi pour mu lebal ka un kilo et demi pour envoyer ah hmm. donc euh, et puis muy rafetlu aussi euh, argumentaire bi nga teg par rapport ak euh, la solidarité. Euh, yaakaar naa ni que si loolu doon dellu si nit koo xam ni euh, dafa xiif dafa dafa mar. Hmm. nga ñëw di ko wax ay procédure hmm. moom euh, loolu mënu ko mënu ko intéressé. Hmm. li mu soxla mooy jot lii lii lii lii li ñu séddale. mais communication fi nga nekkoon noonu c'est vrai c'est important parce que léegi si cas cas communautaire lañu nekk. on a l'impression que on n'arrive pas à trouver une solution. en tout cas communicationnelle pour wax ak sénégal yi. yow est-ce que am nga ci xalaat. par rapport ak lu ñu mën a waxee parce que cas communautaire yi nit ñaa ngi toog masque yi c'est vrai c'est important c'est automatique mais mhm. est-ce que am na neneen lu ñu war a waxee léegi waaw non dama doon wax bala may dellusi ci médecine traditionnelle bi ah, médecine traditionnelle bi c'est vrai c'est vrai euh, man d'abord je pense que heure bi ñuy euh, joxe bulletin bi mhm. oh, man damay proposer ñu def ko après le journal de vingt heures hmm. dina fekk ñëpp toog ci na fekk nit ñi nekk ci kër gi na fekk ni ñu dal d'autant plus que ñu ngi dugg ci koor gi les gens vont écouter mais boo ko defee à partir de dix heures ça peut poser un problème parce que boo fekk ne nit ñaa ngi daw dañuy dégg après dañ koy liir je pense que comme ñi ngi def lu baax dañ ciy dolli loolu parce que comme je dis rek ci réflexion rek la ñu nekk pour mu gën a baax mm-hmm. te chaque fois bu paree ñu wut un message fort mu jàll mais am na li nga xamante ni télé bi rek mënu ko régler hmm. à la base il faudra que li ma la wax la les anthropologues les sociologues parce que xel yi la ñu war a waxal xam nga bu doon te ni dafa nekk un problème purement médical dañ koy régler comme on avait réglé Ebola hmm. et lii dafa wane ni tey suñu système de santé ak suñu agent de santé est-ce qu'on n'a pas l'impression que communication institutionnelle bi rek la gars yi privilégié par rapport à d'autres formes oui, de communication. Oui, tu me diras, mais d'autre part aussi, je sais que le ministère de la Santé mi ngi utiliser les les artistes ñi ngi def ay ay. Euh, mais de manière de manière euh, euh, voilà ku nekk yaa ngi ci jàpp. voilà mais euh, mais man c'est pas coordonné en fait. c'est pas coordonné on n'a pas comme comme li ma gëm daal man. mooy je sais que ni nii ñu ko bëgg nii ñu nii ñu ko doxalee nii mi ngi jur résultat te nag bu ñu bu ñu wax ni aussi que. Sénégalais yi vraiment du ñu dégg du ñu déglu couvre-feu bi je donne un exemple les gens parlent de couvre-feu Euh, respecté wuñ ko vraiment mais mais Dakar. 19 communes la. admettons que 19 communes yi bu ci nekk am 20 euh, quartiers. ça fait presque 400 quartiers sur 400 quartiers. Mm. Médina rek la ñu mus a wax ni. ñu xaw a am na am na faille je pense que. résoudre nañ ko xar yàlla itam. Euh, waaw bon quelques quelques quartiers la donc sénégalais yi ñi ngi def effort pour conformer wu. xam nga man li may li may éviter mooy ñu gëmloo ñiy décider nii sénégalais yi dañu dëgër bopp. dañu war a toog seen kër. Mm-hmm. ñu indi méthode forte. Mm-hmm. maanaam dinañ confiner bu kenn génn sa kër. léegi nag nga gis nit ku génn këram par force. parce que après léegi mu indi la un problème politique bi nga xamante ni tam man nag je man je suis politique <laughs> man damay politique Macky Sall la àndal. man lépp lu may xalaat dama koy xalaat eh. intérêt askan bi eh. mais damay seetaale également lan moo ko ci mën a génnewaale moom eh. une question qui nous vient des des États-Unis euh, am na kuy jël la part de de de de Wally Seck est-ce qu'on n'avait pas trop de porte-parole finalement est que loolu moom mooy euh, non je je pense non je je pense pas pour ceux qui délivrent le message je pense que le ministre a fait preuve d'une grande générosité moom non je vous parle de la mouvance présidentielle Ndeytiki, ah non, ah non. Seydou Gueye, ah euh, euh, C'est-à-dire, c'est-à-dire il y a le porte-parole du président de la présidence de la République mm-hmm. qui s'appelle Abdou Latif Coulibaly, mon professeur à qui je rends un hommage d'ailleurs. Mhm. ak euh, porte-parole du gouvernement Ndeytiki Ndiaye. Mhm. mais ñaar yooyu laa fi gis comme des porte-parole institutionnels. moom lan la Seydou je pense que il est il est est ministre chargé de la communication. je pense que sur de la présidence la présidence. je vous dis bu dee porte parole. ki ma xam ni mooy porte parole mooy Abdou Latif Coulibaly. ok ah asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi na def. ça ñu ngi lay euh, gërëm tur bi naka la ñu woowee. waaw maa ngi tudd Mouhamed Samb dëkk Thiès waaye maa ngi lay woowee depuis Tamba. waaw bu ñu la mënee gën a dégg euh, tuuti. waaw man maa ngi tudd Mouhamed Samb dëkk Thiès. mais maa ngi lay woowee depuis tambaa d'accord d'accord. waaw di am contenté ci mhm. propos yi nga xam ni moom lañu fa dégg Maodo Malick Mbaye wax ko ci plateau bi. Mhm. xam nga il a bien dit Macky Sall est extra généreux. Mhm. mais lui aussi est un homme extra généreux de par ses de par conseil euh, conseils. parce que nit la ko xam ni du ànd ak nit di ko jey. moo tax moo tax li mu wax ni euh, le problème du gouvernement. peut-être problème de générosité la hier dama doon déglu ci benn rajo de la place un un boo xam ni du mouvement euh, présidentiel pour wax la problème de générosité bi ñu am muy jéem a ŋàññ li nga xam ni tey jii nii moom moo moom la ñu def noonu maanaam ni ko mbiri gars yi doxale mhm. pour wax la ni amuñu problème communication mais problème générosité bi nga xam ni moom la Maodo Malick mbay évoqué ci plateau bi loolu kese la te man xam naa ni Euh, Macky Sall nekk na nit koo xam ni nit ku nit ku libre la te xam naa ni kenn du ko dugal ci yenn yi donc daal may wax ni rek euh, nañ ko gën a déglu moom Maodo Malick mbay mi nañ ko gën a déglu buñ ko dee buñ ko dee déglu bari na ci ay problèmes yoo xam ne macha allah dina jeex ci biir gouvernement bi incha allah. merci beaucoup jërëjëf ñu nuyu waa Tambacounda yi ñuy. ah ma yaakaar ne Thiès la wootee. non il est de Thiès. Ah mais Tamba la ñuy woowee. très bien mais mais am na doon laa bëgg. non médecine traditionnelle xam nga médecine traditionnelle bi. Uh-huh. depuis le 9 août mm-hmm. ci la Cour suprême validé euh, la pratique organisée ko de la médecine traditionnelle. Mm-hmm. mais ñun mënuñu man xam naa pas yi nga xamante ni ba daaw lañu génn àdduna. Mm-hmm. mosuñoo dem hôpital. cela veut dire que on a une réalité qui s'appelle liñ naan. fajum olof maintenant aussi buñ ko ni ñàkk organisé bi taxaw na mu lor ñu bari parce que xam nga bu ma la joxee benn pëndëx xaw ma molécule yi xaw ma nu mu demee jox la ko ni la dell ba mm. ñetti kuddu ak ñetti kuddu reer mu indi la fekk nga am problème tension donc ñu légaliser ko mu am une direction ki s'appelle une division qui s'appelle division de la médecine privée de la médecine du travail et de la médecine traditionnelle mais dama jàpp ni li olof di wax naan Euh, gëlëm bu tëwee naar jommali pël ñun nii ñuy doxale nii noonu la tubaab yi doxale tubaab yi moom ñun nii ñuy def nii lañuy def mooy confinement port de max ak yooyu loolu lañ def <laughs> mu ci ñoom léegi par jour xam nga ñun dañuy déglu par jour ñaata cas communautaire la am ah. ñoom par jour dañuy déglu ñaata moor la ñuy am kon xam nga pratique yi mën na dem mais te régler problème bi quoi qu'on dise donc nañ ko téye waxuma ñu bàyyi de nii ñuy def nii baax na nañu seere les mesures nañu seere mesure wu demalante yeeg dikkalante yi mais fi ñu war a jóge mooy nañu nañu ci jël suñu médecine traditionnelle boole kook suñu scientifique yi mais ñu xam boo boolee ngeer ak xaw ma euh, nebadaay ak xaw ma lan nga boole ko natt ko scientifiquement bu ko nit naa ne lan la mën a def ci yaramam parce que gis nañu malgache yi démb mm-hmm. ñu def ko ba président bi taxaw naan ci président moom moo def euh, moo def naan mm-hmm. naan ko wax ni dara dewu ci parce que man li may bañ rek mooy suñu Sénégal nag ñu ci laa bokk ñu jafee yor lañu Babacar nit naan la masque yi dafa génn ku nekk naan na état bi joxe masque <laughs> te connexion chaque jour nga gis ku jënd deux cent cinquante francs connexion boo boolee boo boolee semaine bi di nga jënd mille francs connexion <laughs> te xëj na boo doon def masque ñaar nga ciy jënd téeméer garde ko xëj na ñaan nañ yàlla mu gaaw a jeex euh, covid 19 bi dafa indi ñaar dafa wane suñu gestion suñu gouvernance personnelle ak suñu gestion communautaire léegi nag ñun ñoo am choix corona bi moom li mu mën mi ngi koy def ah, ñun ñoo war a xam li ñu war a mën a def am taxawaay bi mais aussi ni ñi jiite jëpp di déglu xalaatu ñi nga xamante ni ñi ngi ci parce que àdduna xel du doy te ku nekk da ngay xalaat dolli ci am na solo Babacar la dernière question il est 17h29 oui je me rends compte tey dugg nañu dugg nañu si pàcc bu am solo mais toujours rek damay gis ni Sénégal ñun am nañu suñu solution bopp gis nga moom dugg na si médecine traditionnelle. Mm-hmm. gis nga agriculteur béykat bi ñu invité léegi gis nga solution yi mu la jox des solutions endogènes. ba ñu invité woon. wax na solution. Sénégal endogène. Mm-hmm. mais finalement kon ñun am nañ suñuy solution. léegi nag on a un problème de leader politique yoo xam ni loolu ñoo ko war a mettre en pratique. loolu rek la du leen euh, parce que parce que béykat bi mënul defal boppam solution keneen mais maanaam li ñu jiite euh, euh, un fossé entre le peuple et les gouvernants non je ne le pense pas a un honnêtement parce que boo xoolee par exemple président Macky Sall ni mu defee dafa ñëw déglu ñëpp bi muy déglu gars yi ñu ngi doon naan mais yii jaru ko parce que Sénégal moom c'est le góor gi de de de de Youssou Ndour mais bi muy déglu gis nañu il avait dit cinquante milliards après yegg na 69 milliards am na ku ma wax ni Sonko remarque ma ne ko mais c'est très bien et puis beneen élément bi gis naa ñuy ŋàññi ñu ne euh, d'accord ñu daal parce que dama gis ñu ne pourquoi Sonko di joxe ay aide yi nga xamante ni dañ ciy def photom mani la Babacar bu fekkente ni parce que gars ñi xam nga lu leen intéressé lu ñu lekk boo ci defoon sa photo sa photo jabar jox leen <laughs> dañ koy jël donc lu nit lu nit mën a def li nga xamante ni euh, mën na ko def na ko def mais bu ñu ŋàññi xam nga boo ne loolu xañ nga ko ñi ko waroon a ñi ko waroon a jot beneen élément bi ma doon euh, bi may gën a jot mooy distribution bi une fois encore nañu seet ñi ko yeyoo te gis nga àdduna loo gis bu fekkee fa mu jëm matewu fa mm-hmm. fa mu fa mu jóge matewu fa mm. fa mu jëm doyu fa ñi ko war a am bu ñu ko jotee rek dina mat mais bu fekkente ni nit dañoo ñëw. Hmm. moo tax ma ni Mansour Faye rëccaguñu. Hmm. on va lui demander des comptes en fin de compte. Hmm. comme on disait l'autre fi may terminer mooy bu ñuy commandé waat. ay denrées. nañ ci boole euh, soble mbay mi. nañ ci boole pomme bi nañ ci boole lépp lu nga xamante ni nit ñi produir nañ ko te bëgg ko jàll te ke lii premier premier jox na rek mm-hmm. mais dama wax ni une fois encore ñun dañuy rafetlu comportement ak attitude bi ci président Macky Sall am mais yamuñu foofu toute la classe politique sénégalaise mm-hmm. mérite notre respect parce que li ñu def Afrique amul kenn ko fi def ñëw dajaloo toog waxtaan ba pare dégguma kenn même coowu ceeb bi nii wax ji bari na les gens ont parlé et tout amul kenn ku ci wane li nga xamante ni ay ay ngàññ la donc ñu ngi leen di encourager aussi yéen tamit ci li ngeen di liggéey ñu remercier bu baax euh, ce téléspectateur de Pikine Pape Niang Moussa Niang mhm. euh, qui qui qui salue la loyauté de Maodo Malick sa constance à chacune de ses sorties Fabienne Felio qui me dit Ben Maodo est très véridique il ne parle pas seulement pour faire plaisir énormément mhm. de réactions comme ça à travers euh, le Sénégal l'extérieur aussi tout cas nii la ñun suñu objectif. waxante eh. ak Babacar toujours pour choisir un invité. Ah on a toujours des problèmes. <laughs> Euh, on se chamaille eh, am na lu ma mérité wul toog fii. Eh, may ma bu am na lu ma fàtte. <laughs> bëgg naa tamit damay conseiller tamit toujours ministère plateau boobu bu ñu koy def. ginnaaw bi ma proposé ñu changer heure bi. traduction boobu sourds muy di def. nañu jël benn ku koy def mu taxaw ci wetu kiy def parce que ñooñu dañu bokk ci askan wi. Ah. te xëj na tey am na explication même changement de comportement bi. Euh, je pense que war nañ leen ci boole. pour xam ni ñoom tamit ci la ñu ci la ñu ci la ñu bokk. merci beaucoup Maodo Malick Mbaye merci à toute l'équipe euh, technique qui nous a accompagnés euh, la seule femme du du groupe faaw mu ñibbi euh, parce que kor gaa ngi ñëw nag mën a commencer di taaj ndogu moom tamit ñu góor ñu ñoom euh, je les salue pas merci donc euh, <laughs> Daba. oui oui le cadreur maison eh, merci beaucoup nga fecc roq mu teg la si dara <laughs> non non xam nga moom il a fait il a fait l'armée ça l'a rendu fou donc je le comprends dafa dafa am fu ñu bokkee ak fu ñu jaarandoo merci donc à toute l'équipe euh, yéen ñu doon seetaan seen kër ñu ngi leen di gërëm demain Thérèse Faye moom mooy ñëw incha allah à de 16h30 euh, directrice de la case des tout petits ah C'est exactement ça. Donc demain 16h, on se retrouve, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Restez chez vous. ni ko président Aliou waxoon bi mu ñëwee fii na ku nekk dëju këram te ñu toppatoo surtout xale yi parce que ñoom il faut ñu leen di protéger bañ a egg foo xam ni dañuy choisir kan la ñuy faj mag wala ndaw et d'habitude su boobaa euh, mag ñoom ñoo nar a ñàkk ñu leen di ñaanal euh, guddik jàmm wasalaam ba suba incha allah.